Babacar Mbay professeur euh, critique d'art également ancien directeur euh, biennale de Dakar ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi nuyu euh, man aussi di leen gërëm ci invitation bi. Mhm. ñuy màggal bés bu ñu jagleel wàllum art tey jii ñu bëggoon a xam selon yow lan mooy solo commémoration. dama yaakaar ne bu ñu xamee art ban njëriñ la am. Mhm. war nañ ko célébrer chaque année muy le 15 parce que art dafa am importance ci réew ci dëkk. Euh, bu ñu ne participer au développement ni euh, ni pétrole mën a participer au développement ni commerce mën a participer au développement ak yeneen domaines yu bëree bari bëri mhm. noonu la aar mën a participer au développement ba tax na euh, suñu président Senghor newoon na culture moo njëkk te moo mujj si lépp loo xam ne moo lii ak développement donc loolu muy la am importance maanaam art visuel bu ñu Euh, artistes yi euh, euh, dañuy jaay les galeries aussi ñi nga xam ne ñu exposé artistes yi aussi jaayal exposition yi di am ay prix di am un peu partout mm-hmm. biennale yi aussi di am un peu partout malheureusement ren daaw plutôt biennale bi amul donc muy lu métti ab tissu parce que seen euh, li ñu naan euh, traite la voilà si si si la ñu exposé si si si euh, donc experts yi ak ak médecins yi ak marchands d'art yi foire yi am ak festival yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne moment yu in yoo am importance la suivi artiste bi. dañuy mhm. participer aussi au développement d'un pays. parce que li ñuy jaay si lay dugaat je donne toujours dama jox toujours exemple biennale bu Dakar. Mhm. bu ñu gisee ne bi li fi ñëw si nit. li fi ñëw tamit na dañuy ñëw fi ñëw fi ñëpp dañuy dagg seen billet d'avion ñëw nekk ci hôtel yi euh, donc di fay ay taxes di jël suñuy taxi di jël suñuy car di jël suñuy bus euh, di lekk suñuy restaurant bi ñibbi aussi di bi euh, ñibbi aussi di yóbbaale ay cadeaux. Mm-hmm. loolu yëpp bu nga xeeb donc il participe d'une certaine manière Euh, donc au développement euh, si vous du pays. tey euh, bu ñu doon wax secteur des arts ci mim réew nan lañ ci lan lañ ci mën a wax. ndax mën naa wax ne secteur des arts bi mi ngi amélioré wu nànk-nànk même su fekkee ne ay problème am na. Mhm. yu des bëri aussi ndax li am. Euh, mooy artistes yi am euh, ay galeries yu bëri yoo xam ne dañ mën a exposé maanaam dëkk bi am ay galeries mhm. euh, ñu ubbi espace d'art yoo xam ne artistes yi nañ mën a exposé nañ mën a montré li nga xam ne ñu ñu ngi koy créé parce aussi tant que montré wut li mu créé rek ki wuri du big li koy bégloo dëgg dëgg dëgg mooy parce que créé na benn bëgg na nit ñi ko mhm. bu ko nit ñi gisee aussi bëgg na aussi nit ñëw mën ko jënd parce que si loolu aussi lay dundee. Euh, mais surtout ñu am école des arts bu baax école des arts bañ amoon xam nañ ne ne ak école bi bokkul école des arts bi ñu amoon dafa nekkoon école des arts référence boo xam ne euh, wax dëgg yàlla formé na artistes yu rëy yu mag euh, tey ñu dem ba amoon seen di louer ay bâtiment mais surtout ñu former aussi donc jàngalekat yi fay nekk former aussi artistes yi bu baax a baax loolu daal la la mais aussi ñu yokk financement bi ñu yokk ñu gën a financer si vous Euh, les arbusien mhm. financement bi mooy artiste bu amee un projet pertinent euh, ñu financé ko euh, ñu teg aussi ay prix mu bañ am rek si benn prix bi am annuellement sax lee sax du am le prix du du salon ou bien le prix de la biennale mhm. ñu teg ay prix yu bëri bëri parce que ay prix yooyu neta artistes yi gën a xarañ neta artistes yi gën a création bi loolu yëpp daal bu booloo donc la gëm naa ne Euh, secteur des arts dina gën a dina gën a dem ci kanam. dem ci kanam googu ndax Sénégal am na marché de l'art. waaw xam nga euh, mën nañu wax ne am na ñuy jaay ndax artiste tamit li ñuy créer am na ñu koy jënd. Mhm. am na jaay am am na ñoo xam ne aussi ñoo ngi ah, jënd euh, maanaam foofu la ak demande bi am na. Mhm. waaye jënd beeg jaay boobu est-ce que mën na tax ñu wax marché des arts man personnellement yaakaaruma ko ndax bu ñuy wax marché des arts dafa am lu ko ëmb. li ko ëmb lu bëri nag loo xam ne euh, pratiquement mën naa ne amu fi ñu ma joxee benn exemple rek li marché des arts euh, ni ñu ñun euh, li fi njëkk mooy il faut des maisons de vente maanaam ay kër yoo xam ne ay kër yoo xam ne dañu koy teg pour rek ñu nekk di def ay ventes aux enchères. Mm-hmm. te xam nañ ne loolu amul Sénégal dëkk am mën nañu ko compter ci biir Afrique maanaam réew mi ak biir Afrique maanaam Maroc la Nigéria Afrique du Sud dëkk yu bëri amu fa. Mm-hmm. dëkk donc une maison de vente. aux enchères amut pratiquement ci dëkk yu bëri Afrique amul Sénégal mais aussi ay revue spécialisée parce que artiste bi li manqué aussi euh, li ñu manqué ñun ci artistes yi mhm. mooy euh, manqué wax bëgg dem sama benn conférence ne artistes yi euh, ñu ngi créer mais ce qui manque c'est vraiment la lisibilité la lisibilité ils sont visibles parce que ñu ngi ñu ngi créer ñu ngi exposé ñu ngi leen di gis mais li leen manque dëgg dëgg dëgg mooy ay revues spécialisées Mm. Euh, maanaam ay critique ay critique yoo xam ne ni nga ko mën a bind seen création. Euh, mm-hmm. mu nekk ay revue euh, critères yoo xam ne moo tax vraiment seen liggéey ñu mën ko xam malheureusement journaux yi am fii à Sénégal la presse page bi ñu réservé page yi page bi ñu réservé à la culture à l'art pratiquement bëriwul parti si sax voilà c'est souvent relégué au second plan la culture donc baax na vraiment Euh, ñu am de revues spécialisées mais surtout li gën a manqué euh, ma gëm ne peut-être loolu aussi euh, tant que amut mënuñ parler de maison de marché de de l'art plutôt mhm. mooy ay métiers yoo xam ne def nekk ci biir art te te manqué Sénégal mhm. li ay commissaire priseur li ñu wax ay commissaire mhm. d'art ay expert d'art li wax donc ay galeriste même su fekkee am na fi waaye bëriwul loolu yëpp ay métiers yoo xam ne la ay marchands d'art euh, les marchands d'art euh, les e les voilà yooyu yëpp ay métiers yoo xam ne la vraiment dafa manqué bi Sénégal ba tax na même su fekkee ne njaay mi ak ñi ñu donc la ñi ñi ñaa ngi jaay ñi aussi ñu ngi ah, ah, jënd taxut ñu mën a am vraiment un marché de l'art bi nga xam ne Euh, moo tax ñu wax. kon bu ma la déggee ngay wax euh, création bu méngoog jamono taxul tamit ñu ne euh, dëkk bi am na marché de l'art. waaw en en création bi méngoo naa méngoo naa parce que am nañu article yu xaram. Mm-hmm. te boo xoolee tey sama benn article ci wax naan le véritable marché de l'art africain mi Europe. Ah. mi Europe. parce que tey et et c'est malheureux parce que tey boo xoolee si article xam ne ñoo gën a ah. Mhm. Euh, tey euh, li ñuy jaay euh, ils sont cotés en Europe mais biir Afrique pratiquement sax amul cotation donc tey donc rapport bi mujjee génn si artistes africains yi nga xam ne ñoo gën a coté. Mhm. te boo jëlee suñu Sénégal mën naa ne trois artistes ñoo nekkoon donc ñetti artistes Houssini Camara Soli Cissé ak Sow. Mhm. ñoom ñoo si nekkoon xam nga bëriwul. te ñoom te bo compter rang bi bo compter boo compter rang bi nekk ñoom par rapport a ak euh, les autres artistes africains. Mhm. ñoom ils sont loin ils sont loin donc ça veut dire que aussi euh, euh, boo bëggee nekk ci marché de l'art bi boo xool pays anglophone yi ñoo gën développé ci côté boobu. Mhm. parce que ñoom da dem ba miir marché de l'art bi da dem ba xam la même marché de l'art mu la Nigéria Afrique du Sud si c'est des pays anglophones. euh, actuellement, c'est les deux pays africains qui dominent le marché de, euh, de l'art africain. donc euh, loolu yëpp dafa am important euh, donc vraiment am nañ ay artistes nag yoo xam ne vraiment xarañ nañ mën naa ci wax artistes yoo xam ne ñoom sax dañoo côté comme ku mel na donc surtout sollicité ku mel na Youssou Ndoye ku mel na Feu Ndari Lo Feu sow Sow Awseni Camara donc Camara Gueye les jeunes artistes yoo xam ne aussi ku mel ne Kiné Aw Euh, Laïka moo remporté woon euh, il a deux ans le grand prix du président. am mm-hmm. euh, Mbaye Babacar Diouf Ismaël Weber bëri nañ daal ñu xarañ lool lool lool lool. ñu ñuy def aussi dafa méngoog suñ temps. Mm-hmm. méngoog vraiment temps ñu nekk nii mais pour man foog ñu jàppale leen. li jàppale bi mooy ñu mettre en place conditions yi yooyu nga xam ne. moo tax ñu am un marché ci jàppale googu professeur gis nañu jéego yi euh, comme biennale bi nga tudd tout à l'heure gis nañu musée des civilisations euh, donc taxaw euh, gis tamit ay galeries donte comme nee nga bëriwul waaye est-ce que jàpp nga ne loolu ñuy teg yëpp ci initiative ñoo ngi jël en compte artistes yu ndaw yi soog a jóg. waaw xam nga ne artistes yu mag ñoom pratiquement ñoom xam nañ leen mais pour man foog ñu promouvoir. artistes yi nga xam ne xamuñu leen surtout euh, yu ndaw yi euh, ba tax na euh, ñëpp kontaanoon il a deux ans bi nga xamee ne artistes yi remporté le grand prix du président de la République au salon mhm. des arts visuels ndëkkul Dakar ñu Kolda nekk aussi artiste bu ndaw li ñu xamuñu ko woon sax après ñu ngi commencé siiw léegi mu tudd Ablaye Ka donc dañoo war a promouvoir artistes yu yooyu mais pour ñu promouvoir leen mooy foog ñu ay bourses de formation ñu mhm. ay bourses de résidence euh, foog aussi ñu jox leen seen chance ñu mën a exposer voilà loolu aussi je euh, ma ngi lancé appel euh, ma galerie si donc la l'État à travers ces centres donc culturels parce que tey chance bi am mooy dëkk boo dem bi Sénégal am na centre culturel donc mën nañu exposer artistes régionaux yi nekk foofu mais régulièrement ñu montrer euh, si vous seen création euh, mais aussi à travers les galeries euh, de la nationale à travers des centres comme donc le Tout-Sec à travers des centres comme Blaise comme la place Souvenir ñu promouvoir vraiment les jeunes artistes jox leen seen chance aussi je loolu euh, c'est important. Euh, bu yàggul euh, ñoo ngi gis ne Afrique moo ngi jotaat li nga xam ne mooy objet d'art yi ñu jëloon yóbbu ko bitim réew li ni mel noo ko jàngat. ni mu ko jàngatee mooy objet yooyu yu si objet yoo xam ne dañ ko sàccoon wala ñu amee ko si anam boo xam daa nekkul yoon ba tax na comme nag ñoom objet yooyu li si bëri. Euh, ni ñu ko amee woon nekkul yoon. Mm-hmm. te loo moomut nag lañ ne ci euh, ba ko fa maa nga delloo ko comme ñoom moom moomuñ ko woon dañ ko jël ci beneen anam euh, ci ay guerre ay conflit mbala mbala parfois ay dañ koy spolier mm-hmm. li ma gën a li ma gëm daal mooy objet yooyu dañ ko war a delloo daa ngi fàttali maa ngi ciy bind ci ci benn article parce que def naa ci ay conférence yu bëri bind naa ci aussi benn article boo xam ne ba léegi mi en ligne ma si wax ne euh, yaa euh, dafa am si wule benn faux débat biir Europe bu naan africain yi bu ñu joxe makk tamit am bu ñu joxe objet tamit am fu ñu ko def mhm. loolu euh, teguñ ko fekk parce que Afrique tey musée ñu ngi ñu ngi taxaw tey am nañ sa au Sénégal am nañ musée des civilisations noires boo demee tey Bénin boo demee ay Maroc boo demee ay Égypte boo demee ay euh, musée yi ñu ngi koy ñu ñu dëkk bu nekk mi ngi koy taxawal ay musée yu bees. Mm-hmm. fekk si ba nga dem Algérie euh, voilà dëkk yu bëri ba ñu tax ay musée yu bees donc euh, yoon la objet yooyu retourné woon ñu def ko dans nos musées parce que tey la jeune génération dañu am sens gis objet yooyu bu nekkee Europe. Mm-hmm. te mu nekk objet yoo xam suñu patrimoine la donc baax na lool nag sa patrimoine Euh, sa dëkk sey dëkkandoo say say doom euh, mën ko gis ba mën a xam euh, seeni maam li ñu doon dundee li ñu créé woon ban importance la am euh, euh, donc si vous voulez euh, ban importance la am. jeexaleeg ah, actualité jeexaleeg actualité professeur muy exposition gi ñuy amal ci ay œuvres d'art yu Léonard de Vinci tey jii loolu ndax mën naa andi wala apporter dara suñu réew. lu mën a apporter waaw. wàllu mm, visibilité comme Sénégal tey vitrine la voilà parce que peut-être dina jox visibilité au Sénégal parce que nit ñi dinañ ne exposé nañu le grand tatat au Sénégal. Euh, nit ñi nañ ne nit ñi ñoom après li ñu gis mooy exposé nañ Léonard de Vinci donc au Sénégal donc na ko jox visibilité mais man expo bu dema fa euh, dema euh, fa parce que day sama benn xarit moom ma laaj ndax expo ba dem naa ko ko déedéet dema fa parce que pour tooñ ko rek ma ne ko sens am mooy peut-être man gis naa Euh, ay vraie œuvre Léonard euh, de Vinci parce que œuvre yi ñu exposé fii ay copie la mhm. ah, nekkul nekkul ay vraie œuvre ah, même fekkee ne ah, jege na ko lool ay copie la mais loolu yëpp dama doon wax rek pour tooñ ko mais li gën a tax dew ma fa mooy man dafa am euh, lu ma gëm te ma tema ma ko te ma gëstu ko si lan moo taxoon ñu créé musée boobu mhm. musée des civilisations noires bi ko Senghor di am idée bi da ko jagle woon et puis l'utilisation noire maanaam noir yi nekk Europe ak Afrique ak Inde ak Asie fépp nekk ci àdduna bi Senghor loolu loolu la ko jagle woon donc buñ demee ba ci exposé ñoo xam ne sii nañ ba pare mais surtout luñ du du duñ bokkuñ ci ci ci civilisation noire demee ba ci exposé ñoo xam donc la civilisation noire Euh, dama gëm ne ñoo ngi tegg yoon bi nga xam ne moo taxoon euh, ñu am idée création musée boobu mhm. euh, tey suñu artistes yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci biir Sénégal ku mel ne Papa Iba Tall ku mel ne Iba Ndiaye le peintre les deux les deux grands artistes yooyu tey doon nañ gis mook expo wala ci musée yooyu nga xam ne ñoo ngi Europe donc ñun lu tax ñuy exposé ku mel ne Léonard de Vinci nga xam ne bokkut ci la civilisation noire ce musée là maa ngi koy idée bi taxoon Senghor créé ko da ko déjee woon vraiment uniquement aux civilisations noires. merci beaucoup professeur euh, Mbaye Babacar Diop. merci beaucoup madame. di leen gërëm di leen sant invitation bi.